jërëjëf mbokk yi ñu seetaan ci wasaare làmb mbokk yi koy defalee saa su ne ñu ngi fii ki ñu fi woo mooy Assane Ndiaye signature contrat ak Tidiane fay la prospecteur de Langsar kaay ñoom ñaari mbër yëpp dugg yëpp dañoo war a bëre ci bis bi ñoom mbër yëpp ñëpp dañoo war a bëre ci bis bi nuy naa la. sant bu baax. Caatu Nja. Caatu Nja. waaw. guy gi numéro 2. guy gi waaw numéro 2. Caatu Nja. mbër noo tudd. Omar Sida. booy mbës bële tapet bële. dina leer. mbër maa lay. delloo wër. kirij bu sew. kirij kirij bu sew. waaw. man Alioune Salah numéro 2 waaw. mbër nuyu naa. ok maa ngi lay Douglas numéro 2. caatu euh, Colobane. waaw ñëw na waaw. dina neex. mbër nuyu naa la. waaw déedéet bu lépp. noo tudd. dégg ah, na non maa ngi koy xaar waaw. baax na naa la. ah. siyaar naa la. baagal na la. Ziza maa bu muy caar guy gi. ñëw na non non yegg seegul ah, def. dinañ parce que yaa ne ko. jaamu sa tee rek. jaajëf. mbër nuyu naa la. delloo naa la ko. tur ama bu kër Mbaye Samba Lawbe. ana bu ñëw na. gisagu ma ko nag. Ah, na daa am rek. yàlla na doon jaamu rek. wala mu ñëw waaw. moo ma doon moo ma doon gënal de. waaw waaw bare na lool li ma ko dencal. champion Kewel. ziar naa la bu baax. waaye dolli ziar bu wér. yaakaar naa ni tabaski bi moom li ci des. ak combat bi li ci des. bareetul da waaj komba pare dem julli ji tabaski nooy waajee Tidiane fay le professeur de Langsar. waaw comme ni ma daa waajee rek. waaw anteeg waa Bawol gi yëpp. anteeg samay mbok ak samay xarit ak samay am di jàmm. ñu jàppale ma ci baax nag waaw jàppale ma ci bu baax a baax waaw. Tidiane Faye dañ koo jox xale Alioune Seye gis nga ni mu ko def arène nationale corrigé ko ñu joxaat ko beneen xale fi mu jaarale Alioune Seye mbaa du la fa jaarale. noo danga nga ne Tidiane Faye ne Alioune Seye Alioune mi mu daan sama sama rak moo ko daan mbay guy gi te boobu sax moo gën a gaaw waaw te mbay guy gi boobu ko daan sunu suñu kippaar la suñu kippaar la yaroo ñoo ko jàngal bëre kon man loolu lépp sax. jarut ma ciy debaa man gisuma sax loolu waaw li ma koy andil loolu laa gis man. mais jëli ah, Kewel li ma lay laaj mooy da ngaa jóge defe naa ci ñaari defet yaakaar naa tey lan moo war Kewel ñaari defet nga jóge ci muy lu diis ngay daje koo xam ne ci victoire la jóge te sànq Père Max Mbargane nee na ma Tidiane boo amee doole tiitu ko kenn te xam na ne am na doole. waaw loolu lépp mën naa nekk man moom mu am doole sax ma gënal ma ne mu am doole moo ma gënal moo ma gënal. waaw parce que dama bëgg a jëflanteeg moom. da nga bëgg waaw waaw ban façon jëflante xeex lépp. Ah. waaw pare naa lépp daal man instant mu toll nii wax waruma. jëf rek. Bawol gi daa am lu ñuy xaar ci man wax waruma jëf hmm. rek. kon looy wax Tidiane. di ko ñaanal jàmm. di ñaan jàmm ba le trois. ñaar ku dàq bëre. loolu lépp dina leer le 3. Ah, professeur la ko gars yi wooyee. waaw loolu lépp mën naa nekk d' accord non mënumaa gis professeur am. xanaa ñu bëri nangoo doon élève Tidiane Faye. sa waay man dëkk ba ma juddoo fala la bëre samp baax ku ku yar Mbaye Diouf yar la nga ne ci ginnaaw maam Góor Diouf ginnaaw Seex Mbaba man fa ma dëkk fa la bëre samp baax. yaa ngi dégg ci ginnaawu Tafatine man tiituma ay mën a bëreeg yooyu man bëre ci man la sam baax. barki alxuraanu karim sër gi ay reelal ma def sax. wallaahi. kontaan ci yow. jaajëf commandant. yaakaar fii nga ñu indi. bu mu wax wax na bu yàgg. ndax bu ñu nee Assane. le roi de Iba Mar nga koy bañ. ba yàlla dogal na ko nga indi Tidiane Faye ak Guéweul. waaw bis bi waajal ak lan lañ mën a ci Assane. waaw olof Ndiaye da ne cin bu naree neex su baxee xeej lamb sécurité moo ko yor premièrement gis nga ni fii ni mel noonu la ñuy àndandoo dem la 3 tegal leen combat yëpp Tidiane Faye Kewel Texoc Caatu Montagne Bébé Ama Samba Lawbe combat yu doy war la amateur yi bëgg ñu koy waxtaanee su ma ko defee ñu yëg ko loolu laa yëg comme ñoom sécurité bi nga indi signature contrat rek nga indi bu toll nii làmb ja lan nga ci waaj ak lan moo waral lool. làmb nii la man demee xam nga làmb faaw ñuy yokk sécurité bu amul violence day am mais fii nii kenn du yëngal te làmb ja lu ko raw ngay gis incha allah maa la wax loolu. kon nit ñi da bu ñëwee dina indi mais dina yóbbu maa la wax waaw comme daf rek sant yàlla bu baax. yëpp dajaloo nañ nga jël Siteu rawatina Thiès. waaw comme daf ñaan yàlla ya jëm si bis ba rek Assane Ndiaye dëgg xam Assane Ndiaye mooy dëgg lu neex lu ne. waaw moo tax nag ñoom ñaan yàlla yàlla may ñu ndam waaw. adversaire. waaw adversaire adversaire la comme daf rek mënut a weesu adversaire. bari nañ koo soxla woon yaa ko laaj moo la laaj. wala promoteur moo la ko proposé. non sama ménageur yi làmb moo ñu boole. làmb rek a ñu boole du leneen waaw. ah mooy Mada Ndiaye moo jël lu nekk. combat am. combat am la. Mada Ndiaye yaay bëre lamb ji. du man maa bëre lamb ji. mais li nga wax dëgg la ambulance ñi ko soxla woon bari nañ am na mbër yoo xam ne sax xëy na ñoo ëpp tur yuus ci lamb mais xam nga Assane nag fan la wuteeg yenn promoteurs yi mooy combat bu mu mbër bu ko yàlla xiir ci moom daan yàlla da koo xiir ci yuus adversaire boobu da koy da koy jaral moom day jaay pour décrocher ko loolu mooy fooru Assane moom moom combat boo xam mbër moo xam ne yàlla xiir na ci yow moom day rayante lépp adversaire boo bëgg da ko décroché ak lu a jar nag da jaral mais bu dee mbar boo xam ne yàlla xiiru ko ci yow nag soo ko mee sax moom dalee di mooyu moom voilà moo tax amoon na ay adversaire yu ñu ma doon ciblé yu ñu ma doon sitel mais man maa imposé Assane euh, ambulance da ambulance nag comme ni ko waxee ñëpp a bëgg a bëri moom am na mbar yu raw yu ci làmb fuuf am na mbër yu daan yu sax ñoo xam ne bëgg nañ ko li may xam naa ko bu baax waaye nag na yàlla ci nii la ko dogal ndax daal la ko yàlla baaxee waaw ndax ambulance ñi ko doon wax ay mbër yoo xam sax mën naa ñu ëpp tur yuusu wala daan nañ sax yuusu ndax man am naa ci lu leer lu leer lu leer. man xam naa ci mbër yu bëree bëri bëri yuñ ko proposé yoo xamante ne vraiment buñ ko bu leen jëloon ci làmb jaadu na lan nga yebee ambulance ba jël ko. déedéet non ambulance la ñuy waxee lan la yebee Youssou ba jël ko. waaw non non non ambulance dañ ko proposé. làq doom dóor xam nga li tax may wax. dañ ko proposé mbër yoo xam ne man bu dee ci làmb. ñoo ëpp tur am na ñoo xam ne daan nañ sax Youssou te ginnaaw bi ñu daanee Youssou léegi gisaguma seen defet kon su wëlbati ko dem di jël Youssou kay da nga naan lan la ambulance yabe Youssou ba jël Youssou wala xipade nag Assane nag day xam naa ne ndaanaanu Assane Ndiaye moo tax ko Thiès non fii la Dakar la ës dàq faa bëre nekk champion nga jël ko waaw ah, man tamit man tamit même la vingt combats ko waaw. en tant bi bi bi bi ambulance ci làmb. waaw bu ñu dajee day neex day gaaw libéré amateur dem ñibbi. te ñëpp xam nañ daa mën a bëre. man mën a bëre mën a xeex. ñaar yëpp laa boole man. ambulance lan la gën a mën a. ambulance ambiance day ambiance rek. ambiance kese kese. mënul xeex. xaw ma mais man sama bopp laa xam. mais mënul bëre mënul xeex man sama bopp laa xam. maa dàq bëre maa dàq xeex lépp maa ko dàq. yaa a nekk maa mën. Matar <laughs> Ndiaye fuuf wax dëgg yàlla yàlla xam ne ñoo mën. waaye yàggatul incha allahu rabi. armé la bu ko jël bu rëy. armé dañ kaa jox sama avance bu sonn mu bañ Matar Ndiaye nii kon du man maa maa armé kooku ma kaa tëb waaw. Mhm. kon nañ la xaar rek. waaw si kanam. ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi. maay san sama ñaari waajur bu baax. di sant sama yaay. di ko ñaanal wér mu yàgg sama kanam bu fekkee sama njëriñ waaw di ñaanal sama papa fa mu nekk daqal ko fi mu jóge waaw li ci sunu kanam nag dañuy rafet njor rek waaw yàlla moom moo yor lépp dañu koy ñaan rek waaw salaamaaleykum wa rahmatullah gannaaw bañ sante yàlla julli si ma xam sant suñu ñaari waajur ñu ngi nuyu waa axlu làmb yëpp di leen ziar ñaanal di nuyu sama papa Marc Margane ak sama président di Cheikh Niang di ñaana waa làmb yëpp ñaan jàmm si réew mi ndax mu moo am solo di ñaanal euh, di ñaanal wér sama adversaire sama rakk làmb moo ñu boole rek waaw. Mhm. Euh. làmb moo leen boole donc dafa war a rafet. waaw waaw non ci la dëkk. dafa war a boole warul tàkkale. non non non du tàkkale parce que tey jii booy seet violence bi bi ñuy wax si làmb ñun mbëri ñu ñoo ko war a incarner mu dañ. Mhm. waaye bu nekk dañoo won loo xam te ne boo léegi dañ ñu koy kii su suñuy supporter noonu la ñuy wone looloo tax. kon lan ngay wax say supporters. non ñëw dañuy ñëw en masse ku xam Tidiane xam ne supporters am ñu non violence ñun xamul li ñu xam dañuy ñëw bàkk mu neex ñaan yàlla mu may ñu ndam bis ba loolu rek la. mais ci bis boobu yi dañuy xaar combat bu neex sa diggante Keweul lan lan lañ mën a xaar ci combat bi ak lan la Tidiane Faye nar a ñëwee. waa xam na war a ànd ak waa waa Lansar. waaw may ànd ak samay rak samay rak laa àndal rek waaw dara lu ma leer lu ma lu may réer si Keweul du ma ko am wax dëgg yàlla waaw ndax dayo bu mu am maanaam dayo bu mu am damay am dama koy am dañ denc ko waaw ci bëri wala ci lépp moom bëri moom war dëgg yàlla moom wax dëgg yàlla kii ñu loolu waaw mu mel ni miin na foofu écrit bi mu dugg parce que tamit bëri naa qualifié numéro 2 bëri naa Mama Lamine am ndam ci kawam est ce que xam nga loolu ak combat bi nga jëm tamit Tidiane Faye man mii miin naa fu ma dugg de ndax wuli daan naa ko ñaari yoon kon yéen ñaar da ngeen a miinante da ngeen a xamante. non du xamante gi xamante làmb rek làmb moo ñu boole rek que le maire la ñuy wax di ñaan yàlla moo ñu ndam ndax jaam sabab lu ak ñaan yàlla. Euh, Théodore. jege si. dégg mhm. li wax a xaar ko waxee rek di ñaan yàlla ndam ci kawam parce que moom gannaaw bu ma respecté la. waaw mbër bu ma jox cër la mais nag bu suur ba amateur dañoo dagg seen bee pour gis lu waaw bëre door la ñu wax mun naa mun naa jeex ci bëre mun naa jeex ci bëre ci xeex en tout cas pare nañu lépp waaw ku ñu jox cër la ndaanaanu bërekat la nag waaw mais nag jaaxaluñu magatum gaynde moom moo ko waxambaane gaynde moom daanaka bu nu dajee ku ne xam ne la fay mais mais xam nga ne le professeur ngay bëri seetaan ko ko ci diggante ak Alioune Seye Junior. non loolu dafa booy samay nopp man xam naa le professeur la. waaw yàgg naa koo siifur moom xam na loolu. nee naa la bi muy daan waajooju noonu ki mu mbootoon noonu. boobu maa ngi sant waaw boobu maa ngi sandaga di ambila ne ci sama garaay léegi ñoom tukki nañu. Touba sandaga laa seetaane ko combat boobu kon xam naa xam naa ko. xam naa lu mu mën ak lu mu mel ni yàgg naa fere ay xale tamit baal la. loolu non loolu lépp garaaw non même génération loolu du xel loolu combat bu neex la woon. moom ak Alioune Seye ci moom la mujj feree na ko te Alioune Seye Junior xale la. Alioune Seye Junior xale la loolu lépp jaarul ma ci débat Alioune Seye nee naa la mbay guy gi sama rak moo ko daan te xam naa ne combat bi ko mbay guy gi daan moo gën a gaaw bi ko Tidiane daan. kon loolu lépp sax ay détails la garaawul en tout cas li ñu ñor daal mooy xam nga ngi def li ñu war di sabablu di ñaan yàlla may ñu dam ci kawam rek amul leneen. Tidiane. Mm-hmm. ayca déggul dégg nga li mu wax. waaw kon li olof Ndiaye wax rek nee na mbaax su mbaaxu waaye du wàññi si baax dara comme nangul na ma li ma li ma xam te moo doon dañ koy sant di ko gërëm loolu rek mm-hmm. waaw. kon euh, ñu bàyyi la nga woote. waaw sant yàlla bu baax. comme yéen ñaar nangu leen waxante dara. loolu ñun si dañoo raay combat bi <laughs> léegi comme ñun. laaj nañ leen Matar Ndiaye laaj nañ leen ñoom ñaar mais nangoo ñu wax. ku ci nekk nee kii nee na kii rakam la kii na magam ci dara mais ñoom bi parce que promoteur mu tëgg combat bi ñëpp dañ ko bàkkee ni moom mooy le professeur de Lansar. waaw kii nee na du du élève kenn. Tidiane Faye day corriger kii da koy jàngal wala kii day bañ Tidiane Faye jàngal ko. ayca waaw comme li mu wax rek xam nga dégg nga li mu wax léegi léegi kon wax jay wax ñaari wax parce que dégg li mu wax nee na nangu na ne man professeur laa. kon nag béy non non non ñun professeur tuddee wuñ ko suñu bopp. damaa bëgg mu leer journaliste lañu tuddee. ci làmb la la dab. kon daf maa dab man bi may dugg si làmb Tijaan laa tudd <laughs> damaa dem ba ñu woowee ma professeur. waaw kon li ma wane la quoi. mais loolu dara nag waaw. ayca na woote ko. kon damay mbokk damay woo sama mbokku séeréer rek ñaanaa heɗanu ñanana in mi tidiane faye na simna nuun joka nuun a njal leyanu in no combat nek jafuma mi fo kewel région de Fatick département de Foundiougne arrondissement Djilor fop commune na fop daal mais xeɗanu ñanam région de Fatick département de Foundiougne Kaolack Karang fop mais xeɗanu dawan damdam di ñaanal ak sama sëriñ sëriñ Abbas ibnu sëriñ Bass Anta Niang ibnu borom daaru ak xalifa yi yëpp seen yooyu yëpp maa ngi leen di ñaanal jàmm di ñaanal réew ndax ci la lépp xaj mhm. ñu ngi ñaan ñaan kilifa yi wax ñu ñaan jàmm si réew mi ni taw bi wàccee fii nii muy sedd yàlla suñu réew mi sedde noonu loolu la ñuy ñaan jërëjëf jërëjëf waaw maa ngi woo waa Bawol gi yëpp rawatina dëkk bi ma dëkk muy Touba Refane maa ngi leen di woo xam nga di woo waa Ndereb waa Lambaye waa Réew Maaw waa Njarnu xam waa tuubaatul Toul xam nga bu ma limee damay juum daal maa ngi woo commune Bawol bi yépp waaw di woo waa bi yëpp xam nga di woo waa Jolof am na ñu ma fay ñaanal di sant waa Passy bu baax waaw. sponsor bi. sponsor bi nu mu tudd. distingo waaw maa ngi koy distingo waaw mooy loolu. di woo sama gars yi ne Kër Ndiaye loolu yëpp waa carrière zil xam nga ñoom bi may ñëw instant mu toll nii barke Seydina Mohamed cent mille lañ ma jox ne ma jëlal oto nga dem ñëw. xam nga di woo waa Medina bi yëpp commune Medina bi tout maa ngi leen di woo malimee ma limee damay juum maay sant ñëpp. di sant sama gaay ma àndal ñoom Malaw Kalidou xam nga di sant ñoom Nokia xam nga di sant sama gaay yi may entraîneur foofu ñoom écrit usine doole gaay yi foofu yëpp man ñaari écrit laa nekk fu ma neex laay contacter. waaw maa ngi woo ñëpp daal bu ma limee rek damay juum di sant sama mag yi nekk Europe yëpp ñoom Aliou Alpha xam nga Ibrahima ñoom Assane ñoom Ndiaye Ablaye Sarr Aliou Sow ñoom ñëpp maa leen di woo ci combat bi waaw. jërëjëf. waaw di wax rek di wax rek di wax rek di wax waa bu baax. ci combat bi ñu jëm nii xam naa ñu ngi koy waaj ñu ngi koy gën a waaj bu baax di nuyu sama gars nga xam ne ñoo nekk États-Unis euh, France ku mel ni Sentel ku mel ni Super Étoile ku mel ni Pakala ñoo ñëpp wax dëgg yàlla seen xel dañu si man tout le temps ñu ngi may woone ma ñu jàpp bu baax a baax a baax a baax may jaare gars yi yëpp di nuyu nag sama DG sum sumaare bi nga xam fa laay liggéeyee mu embauché ma foofu noonu may liggéey foofu noonu nekk femme sa fluide di père euh, sumaare waaw borom borom Jurbel maa ngi koy ñaanal jàmm di ñaan di woo sama mag Babacar Faye di woo ñi nga xam ne ñu jàppale maire Tivaouane Diacksao maa ngi koy woo bu baax di woo nag sama papa Mas Mbargane mhm. di woo nag wax dëgg yàlla suñ son père Cheikh Ndiang di woo waa Tivaouane Lamsar yëpp daal.